jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi ko suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi xam ne moo di Bawal TV mercredi le 31 mars ci atum 2021 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb bu fekk di fay affiche yu am solo gala de lutte à Diofior 28 au 29 mars ci atum 2021 Obouli net vainqueur moom moo di Obouli moomu day moom mooy la nga xam ne nii moom moo di vainqueur 30 mars ci atum 2021 moom Doudou Sané de moom lame moo ko tee ci li nga xam ne nii moom moo di loxoom waaye ba tey ci xatum sunu lamb ñu dem fa fekk fa ki nga xam ne nii moom moo di pongaar yi les de Guiers 2 parti la mu xam ne moom i pongaar yi moom moo ne Lac de Guiers 2 day ne doit pas calculer warul sax am loo xam ne nii da koy calculer day moom Lac de Guiers 2 la mu xam ne moom moo di daar daar day dafa war a jaar ci ki nga xam ne nii moom moo di ma tey ci xëtum sunu làmb ñu dem fekk fa ki nga xam ne di Ama Baldé ma ngay di Modou plus fort que cette fois moo man ki nga xam ne nii moom moo di ko jàkkaarloo moom Modou Lo moom moo ko ko waxee moom di ci xam-xamam fitam fulam faydam ngoram ak jàmbaaram ca la waxee lu mel ki nga xam ne di ministre des sports Ba day joxe na lu toll ci dix millions francs CFA waaye combat bi nga xam ne nii day Ousmane Gandiga le 10 avril ci atum 2021 foofee nga xam ne nga xam ne nii moom moo di seenu fesufe ce soir xam ne ca la nekk waaye bu ñu demee fi nga xam ne nii moom moo di ca xëtum sunu lamb fekk fekk fa ki xam ne nii moom moo di bi yor roi des arènes te am ki xam ne nii moom moo di Ama rey boppam ci xam ne nii moom moo di bi lekk ci xam ne moom moom moo di Sadiba Mar Diop waaye ki nga xam ne nii moom Balla Gaye de wane na soutien ci ki nga xam ne nii moom moo di Lac de Guiers ngir jàppale ko ci combat bi mu ki nga xam ne nii moom moo di moom Balla Gaye de wane na fa taxawaay waaye ki nga xam ne nii itam moom moo di gi ba tey di doomu Géejawaay demoon na foofee nga xam ne nii moom moo di ca école de lutte moom moo di ñoom Lac de Guiers wane fa boppam moom itam seen doomu day seen xarit seen bokk ak nga xam ne ci la jëm waaye ki xam ne nii moom moo di Lac de Guiers de Eumeu Sène di combat boobu ci ak ki xam ne nii moom moo di Mamadou Ibra waaye bu ñu demee ba tey ci xëtum sunu lamb bu dox ci combat ba dox ci diggante Lac de ak ki xam ne nii moom moo di ba tey de la ñu ca xamal moom moo di di police yi ak sapeur yi daañu ca bay seen ba mat sëkk daañu mobiliser wu ñoom ñëpp waaye ki xam ne nii moom moo di Ngom moom day apprécier li xam ne nii moom moo di boobu waaye loolu police yi ak ñi xam ne ñoom ñoo a 2021 waaye ki a xam ne nii moom moo di Tchad ki nga xam ne nii moom moo di Modou Dia la onze juillet bu ñu demee fi nga xam ne nii moom moo di ca jalgati lambu ka fay fekk mooy ki nga xam ne nii moom moo di Anta la xam le moom moo ki nga xam ne nii moom moo di Diène Kaïré bu dawul benn yoon man Modou Anta duma daaw ndax Kajoor mosul daw xare te mosuñu koo dégg fu Kajoor daweb xare yéen ñu koy seetaan lambu actualité lambu te di ko ci télévision topp waaye ku jooy dëpp la ko dale Cees xombal bamba yal tundangal mag sew xabak lañaar kër daam ak kër sayar jàll ndul ak patar kër Ibra Yaasin sambe géwél sambe kool darak daaru xaboor siyaare sëriñ ba dellu siwaat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta Jolof ñëpp actualité lamb Bawal TV mbokk yi ñu yendoo jàmm actualité lamb ak Bawal TV maa ngi koy may waayaar Dakar